waaw kon boog salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum yéen ñi taskatu xibaar yi di wax ne que juróom-ñeenti organisation yi Africa First ànd taxawu askan wi FDS FRAPP luttons contre l'indiscipline au Sénégal nitu dëgg valeur ñoo lànk urgence panafricaniste Y'en a marre ñoo décidé woon maanaam ñoo tënkoon amal ab ndoxu ñaxtu ngir ñaawlu jafe-jafe dund wi askan wi di dund taga tembe ca noonee ni ñu ko ndeyu charte réew mi mayee ci maanaam app bu ñuy wax ci biir ndeyu charte réew mi numéro huit juróom-ñett que ne képp kuy citoyen sénégalais am nga droit nga manifester saa boo ko yëgee te amoo pour tàggu kenn da ngay dem nga yëgal ki nga xamante ne moo fi toogal buur ne ko maa ngi def moom mu yónni takk der pour mun koo encadrer lañ ca seetlu mooy ne bés boobee juróom-benn ci suñu ay mbokk ci suñu ay nawle ci suñu ay camarades dañ leen a jàpp te yegguñu ca place bañ nañ moom lañu ñu aaye ñaar fukk ak juróom-benn muy 26 dañ leen a jàpp te yegguñu ca bërëb ba ñu aaye maanaam ci yoon wi lañ leen dabeeki seeni oto ne leen ciix jàpp ay jigéen a ngi ci woon ay ndaw a ngi ci woon waaye ñu xoqatal leen jàpp leen ci jàpp boo xam ne teguñ ko fenn biñ leen jàppee yóbbu leen lu toll ci. quatre heures ci ngoon muy maanaam ñeenti waxtu ci ngoon ba deux heures du matin kenn xamul fu ñu ne du mbokk du lawakaa te bi lawakaa yi xamee it fa ñu ne muy camp Abdou jaas yi nangu luñ leen ñu egg ca biir noonu lañ fa toogee ba deux heures du matin ñu dajale bogo bogo yóbbu commissariat central bogo bogo di libéré par juróom-ñaar par juróom-ñaar par juróom-ñaar waaye dafa am lu nekk ci biir moo di ne laataa ñu leen di bàyyi ñu dem ku ci nekk dañoo seppi li nga xamante ne moom la ñuy wooyee sa puce manaam sa carte bi tax sa téléphone ngay lëkkaleeg nit ñi ñu rocc ko téye ko ba bi nga xamante ne groupe bi ci mujj dañ leen a bàyyi ca VDN bi ndax ñenn ñi ñu ngi leen sànni ca EGM ñenn ñi ñu ngi leen sànni ca Pombale ñenn ñi ñu ngi leen sànni ca Mbalkamale ndax mi ngi doon taw taw bu métti ña ñu bàyyi ca VDN ba nag ñoo xool gis ne seen i puce nekkatul ci seen i téléphone ci la ñu delluwaat ca commissariat bi pour ñaawlu lu nu mel pour ñu mun leen a delloo seen ay puces waaye ca ñeent oto ya ñu jàppoon bàyyi nañ ci ñaar ñaar ya ba tey ñu nga leen téye ñu ciy wax ne su nekkee ne danga am ay oto yoo téye te oto yi nekk en règle wala oto yi def infraction bindal neel lii ngeen def nit ñi fay amande ba ca war waaye te oto yi jubluwuñ ci lenn lu dul ñëpp xam nañ ko mooy xoqatal moo tax nag juróom-ñeenti organisation yooyu fas yéene nañ incha allahu rabbi buñ jógee ci màggal gi dem porté ji plainte kat kii nga xam ne moom mooy préfet bu Dakar ngir fàttali ko lan la yoon wax parce que dafa mel ne moom xamut yoon xamut li nday charte mi wax moo tax bu màggal bi bu jeexee ci màggal bi incha allah danañ lancer campagne manifester fépp ci fépp foo xamante ne nii gox goxaat na fii ci ndakaaru waaye it danañ def li nga xamante ne nii mooy ay distribution wu këyit yégale këyitu yëgale ñu gën ko xam ci flyers li ma ci bëggoon a tënk dong mooy di ne boo seetloo doxalin bii am tey ci nguuru Macky Sall mun nañ ko lëkkale ak doxalinu nazi c'est un gouvernement néo-nazi le premier gouvernement négro-nazi dans le monde entier c'est ce gouvernement-là qui a créé sa propre police mun nañ ko tuddee Gestapo parce que loolu la nazi yi doon def une police ki traque di écouter nit ñi di séquestrer nit ñi di kidnapper nit ñi di xoqatal nit ñi di dóor nit ñi di espionner nit ñi kon loolu nazi la ak Gestapo ñaawlu nañ ko ñaawlu nañ ko ba fi ñaawlu yem te dafa jéggi dayoo parce que nag Macky Sall yow fajoo ñu Macky Sall jàngaloo ñu Macky Sall ñu Macky Sall sa lépp looy def mooy recruter ay policiers pour dóor xoqatal tiital espionner déglu terreur semer terreur fan la ñu jëm fan la ñu jëm ak nguur gi képp kuy sénégalais kuy yeewoo ci mim réew sa bakkan mi ngi ci xottu gerte nga xam ko ak nga ñàkk ko xam. ku yeewoo ci mim réew ñi ngi lay déglu ñi ngi lay seet ñi ngi lay xool ñi ngi lay càmbar ñi ngi lay fexeel te buñ jotee ci yow danañ def naka su dul noonu li tax nag ñu ne c'est le premier gouvernement négro-néo-nazi c'est parce que bu ñu demee ba léegi ñu jàppee ay manifestants yóbbootuñu leen commissaria ñu leen di yóbbu camp Abdou Diassé loolu mooy tekki ne am nañ seen cas de concentration bu ñuy yóbbu nit ñi parce que loolu la nazi yi doon def traqué espionné kidnappé enlevé séquestré ci camp de concentration sans say mbokk wala say famille wala sa lawkaa am jot ci yow kon nag Sénégal li fi xew dafa ñaaw ñoo ngi artu boobu ba léegi ñoo ngi artu ñoo ngi wax boobu ba léegi ñoo ngi wax ñoo ngi yëgale boobu ba léegi ñoo ngi yëgale lu ëpp nag dafay tuuru yi nag moomoo ñu boo moomee sa gouvernement moomoo suñu constitution ñoo ko moom te moo tënk suñu constitution moo tënk c'est le seul pays où on une ségrégation en Afrique à part apartheid cette ségrégation là c'est la ségrégation des couleurs et de soo bokkul marron beige yow dara amoo ko ci droit ci dëkk bi lépp luy xoqatal ak nooteel dinañ ko teg sa kaw kon nag Sénégal ñoo ko déggandoo nangu nañ suñu ay puces camarades ñu ngi xaar ëllëg si biir ñu jiñ leen terroriste ñi ngi xaar ëllëg si biir ñu jëñ leen ne da ngeen a comploté ñi ngi xaar ëllëg si biir ñu jëñ leen leneen lu ni mel waaye yéen xam ngeen ndax artu nañ leen waaye yéen yëg ngeen ndax yëgal nañu leen kon nag bu mu bett kenn Sénégal gii ñu ne amatul jàmm amatul wóor amatul karange amatul wérle te kenn moo ñu ko teg muy Macky Sall ak ngornement am loolu laa ci bëggoon a wax fi mu ne nii oto yi wax naa ko sànq jàpp nañ ci ñaar ña nga des ca biir commissariat nañ ñu ko delloo bu dee amande bu ñu war a fay la ñu fay ko bu dul amande bu ñu warul fay nañ ñu delloo ay oto jàmbur parce que bu fekkente ne nit ki da ko fekk ci yoon ba mu jëm nga jàpp ko ne ko yow fee nga jëm waa ku leen wax ne nit ñi foofu lañ doon jëm yow nit amoo droit dugg sa oto léegi da ngay fekk nit ci biir otoom jàpp ko waaw loolu ban marche la marche ci biir oto da ko mës a dégg ci Sénégal maa ko soog a dégg marche kay dox la wala boog daje la waaye ci biir oto. ñu fekk la fa jàpp la fa droit de l'homme yi ci àdduna bi yëpp ñaawlu ko Sénégal moo nekk réew mi nga xam ne moo gën a dellu ginnaaw ci ay liberté ak ay valeur yi nga xamante ne mooy mooy tax ñuy wax démocratie ndax benn nit ndax benn ngornement waaw loolu la wax ne dafa doy wasalaam